ayca jërëjëf euh, Aliou Ba jërëjëf Yacine euh, nuyu woon naa leen ci suba nuyuwaat nii rek Makhtar Lom passe partout maa ngi lay béggee bu baax ak auditeurs yi nga xam ne ñu ngi déglu RFM da ngeen ñuy seetaan aussi tamit internet yi suñu page Facebook RFM l'officiel euh, seen journal des faits divers xalaas ànd ak Mamadou Ndoye Bane. Mhm. ak du Mohamed Ndiaye Bane maa ngi lay ziar. maa ngi lay béggee su bu baax a baax sama waa ji di lay ziar ziar Ndiaye. ziar ñëpp rek te naan leen yàlla na ngeen yàlla defal jàmm. démb de yëngal nga seen morom. jaay démb de teg njaay teg baan naan kii le plus beau eh, démb laa la wàcc. premier mi-temps moomoo du. démb laa la sumil sàpp. mais nuñ ko gars yi nuñ ko gars di waxee. waaw nga bu yee fi nekkoon premier mi-temps bi. waaw waaw moom moo ma doon dóor. mais ca fin xaw naa laa rey de. remontada ah, remontada. c'est que man góor ñee ma woote loolu. jigéen ñi mën nañu sa ban bu saan bëreer baan baan baan may lire commentaire yi baan baan waaw Ndiaye maa ngi lay siyaar. <laughs> du courage et nga demaat kiiwaat entraînement yi rek. amul problème yàlla baax na maa ngi lay delloo si <laughs> Euh, seetloo mel ni mbir ci jamono. Eh. loolu mu ngi suñu ginnaaw de. Hmm, waaw non dama lay laaj doof kay pare naa ci. match boobu jeex na <laughs> seetloo ñaari ñi réew boo boo gaas ñu ñaaw la ñuy doon. <laughs> dëgg la boo gaam <laughs> moo gis wala boo góos moo gis ñaaw ba dénk seen waa. dañ leen di kekkantoon deen wooyee noonu non man kenn wooyu ma boo dañ ne rek maa la dàq. parce que looloo tax ñu nga gañ a démb. dañ ne rek maa la dàq. waaw la gis naa benn boo bu dëkk ci géejawaay. Ah. waay mok ñom Balla Gaye ànd. waaw ah. boogaa boobu moom bu dee dëgg rek la yalla bëgg. Ah. ñoñu mom kérok bu len yalla tajé lu dal ci dëgg mom bo ga mom du ci dëgg. ay bo ga tamit nak bana dàq Mouhamed taru ban xana ka communauté lay doon. <laughs> man fu mu ñugé am nga yii lijjanti ma ko. <laughs> taru ban fu mëna juggé ci mim réew. ban ñun xam eh, nañ meer ndoy jaay jaay ay ay way <laughs> jaay dañu dem ci sponsor yi wala dañu dem ci classe bi ñëk fo bëgg ñu dem fa rek. comme auditeur yaangi ngi déglu. Uh-huh. mbuusi yi lool mbuusi waaw waaw loolu. waaw euh, waa ministère de l'environnement. waaw mm. ñoo xam ne sénégalais yi xalaas la ñuy déglu ñu bëgg fee jaar pour wax ak ñoom. waaw moo di sachet euh, sachet plastique yi la ñu bëgg ñu di ko moytu nañu ko bàyyi. nañu bàyyi dem di ko jënd. nañu bàyyi nit jënd ci yow ba pare la nga koy defal nga defal ko ko ci mm. mbuus. dañ koy tere li muy yàq moo ëpp li muy defar ci environnement bi. am na mm. ay sachet papier yoo xamante ne jii moom grande surface yi léegi boo seetloo buñ la jaayee ba pare buñ la koy defal mbuus mañ la koy fañ la koy defal du doon mbuus. parce que mbuus dañoo gis ne dafa bari lu muy yàq ci environnement. kon loi ba dugg na. loi ba dugg na te ay sanction ci topp. balaa ah. ngay tooñ nag. Ah. ci ay mbuus dong gis nga mbuus moom comme taxa taxaw ci kanamu juge ba. Ah. boo fa génnee moom ni yore bagaa def ko ci mbuus fi nii sax dañ koy tere. dañ koy tere jaay mbuus ak jënd mbuus dañ koy tere. léegi nag. tere wuñ ko ndax seen coobare bakkan mais dañoo gis ne. bàyyi mbuus ci réew mi mooy. gën ci réew mi mm-hmm. gën ci waa réew mi mm-hmm. moo tax. très important beneen boo may wax parfum de classe BS. waaw ah. boobu yi dañu koo sëxatoo ci tabaski xam naa ah. gars yi war nañu indiwaat. Ah. li nga xamante ne ji mooy collection parfum de classe BS ndax dafa am pour góor am pour jigéen. waaw ba noppi li ci gën a neex mooy marché boo dem mën nga koo am. xam nga hmm. loolu aussi moom moo tax gars yi gën ko bëgg. Euh, parfum yëpp ci ay ay déclinaison la tuddee ko ay numéro boo soxla nag ci parfum de classe Beyas mën nga ko am. bu neexee jeex de. mi ngi noonu rawatina bu rombee xalaas. voilà BK Gold seen basin yu baax yi. waa mm. kër Serigne mm. euh, KSS Trading waa kër Serigne Saliou. Mm-hmm. nee nañ tam xarit dañu jëm mm. ak gaañi. ak BK Gold yi buñ paree ñoog ñoom ba maggalu Touba. Mm-hmm. lépp rek bëgg gars yi di sol basin bu baax basin bu original basin bu am qualité. vite fait. vite fait ku wax nawet wax ko ndax xam nga réew mi ni mu bindoo. Mm-hmm. bi moom yooyu dañuy sonal. On dit vite fait cuuraayu bant dit mm. vite fait crème bo xam sa yaram nga koy diw mm-hmm. tàggoo ak ay mais également vite fait pompe Mm-hmm. loolu ñom ñoko andi wa waa kër établissement wa kër Serigne Touba Fall et frère ñoo ñu indil vite fait yi. Mm-hmm. Mm-hmm. ñuy euh, ay partenaires ci xalaas. gars nak leg leg dañ lay wo dila wax ne fan lañu mëna amé li nga xamantene ji mom modi bu bëggé jënd en gros 77 555 11 11 ngay woté wala 77 16 34 67. wala 77 441 06 38. moy moy moy vite fait yi du ñooñu la amna solo kii la wax Abdou Abou Sarr. ancien international la. football dëkk ca yaraax boori kër Oustaz Mor Thiam. dafa magal nag dafa xam naa wala naax yooyu paa yi dañuy xëy rek dem dafa réer waa yaraax ngay wër dem ba léegi. ab footballeur la woon boo xam ne daal dafa magal xam naa ne dafa jékki-jékki rek dem. comme ni ko sunu papa maam ñoo la defe woon temps yi <laughs> jékki-jékki rek dem. dajeeg man ban poste la daan football. <laughs> ah ban poste la woon latéral. suñu maam la nañ ko ñaanal mu feeñ rek waaye latéral bu réer de. waxoon naa leen corona gi su Sénégal yi <laughs> su suñu yaroo bu leer <laughs> corona gi <laughs> ay weer waxoon naa leen suñu yaroo uh-huh. mu dem uh-huh. suñu yarul dina fi tabaske waxoon naa dina fi korité uh-huh. dina fi tabaske waaw nga ko yi ñoo koy jël di ko wàll seen yaay ak seen papa seen maam yi ci biir kër yi nga xam ne demuñu fenn lii moom maal ko wax waaw mm-hmm. ah, suñu yaruwul mm. dina gën a tàkkarnaase de en tout li ma ci xam moom mooy am na ci mbir moo xam ne gars yi ñu koy jibal autorité yi nañ ko teel a dagg. gars yi ñu ngi koy jibal. Ah. Euh, autorité nañ ko teel a dagg. en quoi faisant. Ah. sang bu tedd bi Serigne Baye Sy Mansour euh, Serigne Babacar Sy Mansour dafa wax lu am solo. Uh-huh. nañ wax gaañ dëgg. Uh-huh. bu ca dëgg amee nañ ko wax. Uh-huh. mais bis bu Sénégalais yi defee seen bopp ci ne am na luñ ci waxul am na dëgg ju ci am te kenn wax ko. duñ leen wax lu ñu dégg. waaw ah, mais dëgg gi mooy corona gi moo toj àdduna bi voilà dëgg du rombi nopp comme nee na baatu wax leen dëgg jib na waaw nañu génn wax nit ñi dëgg lañ ca mën a xam ñu xam ko ca mais gis nga bis bu sénégalais yi jàppee seen bopp ne wopp si la cay dëgg gaañu waxuñu ko duñ leen digal lu ñu def ah, moo tax bu fekkente ne am na ci lu ñuy laam-laamee nañ ko génn wax xam nga kilifa du wax ah, man day day feebar na ma ko dégg woon ca dëkk ba Chine di ko dégg itali di ko dégg France muy faagaagal nit ñi ñuy alerte ñun nit ñi avant muy dugg fii ci dëkk bi ñuy alerte mu dugg ci dëkk bi ñuy alerter nit ñi feebar bi ñëpp xam ne ni képp koy sénégalais liir bi juddu bii ci guddi sax xam na ni corona ngi ci réew mi. li koy moon li koy niñ koy moytoo liir ba juddu bi xam na ko. Mhm. fi mu nii ku def lu la neex ak maa tey doo nga fi am. Mhm. nit ñi ngi takk masque ñu ngi raxasu lépp ñu ngi koy wax li njaay wax. Hmm. nopp da koo dégg. waaw bu dee am na lu luñ ci waxul la ni. waaw nanu ko wax bu dee nag ñu ngi wax kay luñ ci waxul nañ ko wax waaw mais loolu la wax kay. waaw liñ ci te ban dama dégg li ñuy wax ci réew fii. Mhm. moom la ñuy wax ci yeneen réew ya su fekkee nag aw daamu wu des nañ ko wax. ok mhm. ah, loolu la wax de. waaw mii fii Sénégal nag moom. Mhm. est-ce que dinañ dégg wax. Hmm, Sénégal day takkal masque xoolal piir géej ma dëkk ñu ngi may déglu. kenn takku fa masque. ak mag maire yeeg paa yi nag moom di leen takk masque. mais jeunes yeeg jànq yeeg yeeg kenn takkul dara. fa laa jógee barki démb. ak yëmbal dem naa ca booy fekk leen ñu toog may leen takk leen seen masque ñu ne ma kon nuy lekkee yàpp may leen moo ma jaaxal maa ngi jégalu. lank leen def fekk leen ñu toog ah. nii takk leen seen i masque. ñu góorgóorlu ci geste barrière yi nag xam nga jeunes la. maire yeeg paa yi ko ci dugg biir këram ma nga takk masque. mais ñun ñett ñi toog ngeen takk masque bala mu ñuy dugal. waaw man distanciation ah, ñaata mètre lañ daan dante mat na deux mètres de yaag baan ñaata mètre ngeen daan dante mat na deux mètres de man daal sama yaakaar man kan na su naa di dend ak baan mi nga xam ne fu ne ma nga fa. man dama am confiance ci yéen sax. yow mi naa dend ak yow. Ndiaye <laughs> Ndiaye dem ci mii. Côte d'Ivoire la nekk. benn sëram moo dajeeg benn waayu sénégalais. Mhm. yërëm ko fat ko ni ko nag man ngeen jigéen laa dama lay dénk sama frère bi mu dëkk ak yow. Mhm. déglul ba mu dëkk moom. waaye man dama fi ben problème buma la bëgg soumettre Mang ngi lay depuis Abidjan Doudou Gueye la tudd sénégalais la Da fam sama ben cousine bu nek fi. je peux dire que pratiquement moo fii suma kilifa fi ci Abidjan parce que man dal ma fi affecté bees quoi maintenant deux à trois semaines de cela ben jour mu woma, indil ma ben xalé bu go bu tudd Jabel Cissé que euh, Sédhiou ak sen kër bi nek Sikap Amitié 3 naa la yónnee carte d'identité naa la yónnee lépp ma yor ko suma kër lek mais boko lek naan ñooy bokk naan même attaaya ñooy bokk attaaya xam nga def ko comme suma frère parce que ki ma booleeg moom d'une part sama cousine la et puis sama kilifa la fifi aussi parce que moom mooy toggal et tout ça là bon ma accepté ko ba démb booy bi def na fi deux à trois semaines démb yenn saa yi damay guddee wàcc parce que man euh, je suis un directeur commercial d'un hôtel un Grand Bassam maintenant je suis aussi un aussi comme parfois dans mes parce que pratiquement on est resté trois mois sans travailler donc le travail est trop pour le moment Il y demain damay ay vingt une heures ay vingt deux heures je h à ma dem à vingt trois heures et Mangi Abidjan suma hôtel Mingi Bassam donc de telle sorte que je ma jël benn caabi ma jox ko ko lu ko comme damay guddee wàcc pour man je suis indi te kooku suma kilifa la daf ni ma doomu doomu doomu tantam la ak yaayam moom xaritam la et tout ça là ma def xale bi comme du xale sax hein, parce que il est né en 80 il est né en 80 il a 40 ans du xale naa la envoyé tous ses coordonnées ma def ko comme comme suma rakk ba démb à ma grande surprise bi ma wàccee 13 heures ñoo añandoo naan ataaya mu gunge ma ba ma jëlaat suma taxi ma dem liggéey ndeke moom xam na fi may denc suma xaalis parce que dajale woon dama yoroon xaalis ci biir suma je te jure que il m'a tout pris lépp la ma un million de francs il est parti comme ça avec te beaucoup def lu ñaaw dem naa j'ai porté plainte maa koy envoyé mais bu ma envoyé message de ko lire mais du tontu maa ngi koy waxtaan wax waxu jullit ak parce que beaucoup def lu ñaaw le la yónnee IPSM, ay pièces yëpp génnagul Abidjan parce que frontière de dafa tëj mais fi mu dëkk ak Sénégal comme comme a pas dañ koy de macha allah parce que amoon compte orange tes fii Abidjan compte orange beaucoup koy am dañ lay identifier et bi ma Orange ce matin avec l'aide de la PJ Nous jox un papier ci l'a dem Nous génneel ma filiation et tout cela. là. xalaas. koo fat sër man nak bima ma ak mom Ndiaye. Mhm. néna naa ko mais sa sœur bi fu mu xamee waaj. Mhm. waaw loolu question la. waaw fu xamé xamee ak ñom sen waa dal nim ma waxé touram ak carte d'identité ni ko gissé ak fu mu dëkk mooy ñooñu nga xamni suñ lu nuyoo fii ci dëkk bi. Mhm. da ngay jaxasoo ñu jël la nga yor. kooko coogu côté yooya maanaam ca ñooña la bokk. Hmm. yow noo ko xamee. waaw non xam naa man dama ko yàgg di ki yàgg di njaw di njaw rek. Hmm. dama xoo xam rek li ma gisee daal tur waa fa mu dëkk ak. maanaam cosaan li yooyu. Uh-huh. voilà co foofu la dëkk. Hmm. waaye ñëw Côte d'Ivoire. ñi gën a malaatee. c'est nit ñi ñoo war a bàyyi gaaw a fat nit. yërmande dëkk bi 2020 lañ nekk nekkatuñu léegi 1982 ku jóg ñu fat la ku ci bàyyiwul ku jóg fee nga fat ko di nga tëdd bu guddi ka nga fat sëppali ko jaan matt la nga dee <laughs> mu dem man dama fatul ma sàmba fatuma ma demba ñi gàmmoog ñii raas dem dañoo bokkul nit ñi nan la xas gi avancé waxe mu ni waaw dañ lay nan la xas fii soo defee lu baax sax dinañ la xas nit ñi soo jëloon ay robinet jamaa defal leen ko seen biir kër yi sax dinañ la xas soo leen yeewoo may ko dajal may ko dix mille sax dinañ la xas soo xëyee mayoo kenn dara dinañ la xas defal li dal sa xel te ñu xas la li gis mooy koo gis mu tumuranke rek daa wàcciw yoonam ñi ngay gis ci mbedd mi ñuy fanaan mbedd Ndakaaru yi am nañ ñu dëkk am nañ dëkk buñ cosaanoo juddoowuñ ci mbedd dañoo wàcc seenu yoon jugee seenu dëkk ñëw sànjaafu tumuranke moo waral nga leen di gis ñuy fanaan ci mbedd yi hmm. mais kenn ku nekk am na foo jugee bon ba mu des ñaanut ak xel parce que ñoom tey leen ci kër yombul koo gis mu tumuranke rek daa wàcc yoonam ah, kii di Russie leen ñi booy yi di leen nekk ñu tëj leen fa kaso lu xew Russie déglul ñaar lañu fii nii ñoo ngi fii ci camp immigration bu Russie fii ñu nekk nii ak Moscou 64 kilomètres la depuis janvier ba léegi ñoo ngi ma téye fi kii nii moom itam euh, février la fi dugg ba léegi ñoom ñu téye fii waaye di ñaanaat sunu autorité yi euh, son excellence président de la république du Sénégal monsieur Macky Sall ñoo ngi koy nuyu jàppale ñu laahi wa rasuli ba ñu mën a delluwaat suñuy njaboot ay doomu sénégalais lañ ay citoyen sénégalais lañ dañu génn juste rek ngir am yaakaar ci ne buñ ñëwee fii mën nañ fi am sunu teranga moo ñu àndi fii waaye ñëwuñu fi ngir def safaan wala def loo xamante ne dëkk bi loi dëkk bi da koy tere au contraire sax jàppuñu ñu ñu ci yu mel noonu sunu këyit moo jeex ñu téye ñu andi ñu fi maa ngi sàkkuwaat ndimbal bu baax ci autorité sénégalais yi nga xamante ne tey ñoom ñoom la ya yàlla teg sunu kanam ñu dimbale ñu ba ñu mën a génn fii delluwaat sunuy mbokk ñaar lañu fii nii donc moom itam naa ko jox moom itam mu waxtaan ya. ak ah, yéen asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp yàlla def ñu ñaar ñëw fi sénégalais bon boobu ba léegi ñu bëgg a dellu sénégal di ñaan rek ñu dimbali ñu autorités yi comme ci taxaw ñu gën ce jàpp yàlla yombal affaire yi ban mën a génn fii ci jàmm ndax sonn nañ fi ndax fii nekkuwaay bi ne moo méttee mënoo leen wax lépp xam nga ni ku daan xëy suba génn sa kër di dem ba onze heures wala dix heures ci guddi ngay door a dellusiwaat tey ñu tëj la benn place quatre mètres carrés boo xamante ni dañ ciy def presque vingt quatre heures parce que une heure temps lañ lay may pour nga mën a promené wu ci biti te biti ci biti fi ngay promené wu ay giri la lay war policier yi ba une heure temps bi jeex nga duggaat ci biir ñu tëjati la ba suba xam nga dara gën a ko metti te rey ñu ñu nit jaay ñu dorog sàcc ñu defuñu lu ñuy tere ay këyit dong la visa yu jeex ñu waroon a prolongé prolongé wuñ ko yooyu ci la ñu jàppe affaire u këyit fi ñu doon liggéey lañu fekk di ñaan yéen ñi nga xam ne yéen ñu mën a jàppale te mën taxaw autorité yeeg yëpp ak ambassade yi ñuy taxaw te taxaw taxaw ñi taxaw fii ñu gën ñoo jàppale ñu gaaw a génn fii ci jàmm ndax xam nga ni juróom ñaari weer dafa bari loo xamante ni ba ngay door a dugg dañ ne la woon boo amee deux semaines wala un mois ñu yóbbu la nga dem ba def fii sept mois déjà xam nga ni metti na te nga bàyyi yaay bàyyi jabar bàyyi doom bàyyi mag ak ak waxumal dara mën ngaa ñàkk fii sa wér-gi-yaram lu nekk ndax Ibrahima ngi ni nattu bi ko fi daal gis nga baaraam bi fii la dagge yeneen ak yeneen ak mi sama bëñ bi rek damay sonal torop guddi ak yeneen ak yeneen ñu bëgg rek jàppale ñu te yàlla tax taxaw leen ñu bañ gaaw génn fi ci jamm man mënuma wax moo tax sama xol sama xol kii xaar ma jox wala mom xolam dafa ki franchement mu ngi joy sax ay ronga ñam mu ngi ki sax ko risi fi dafa doy war doy war bo xamantene bo fi dugul bo fi ñewul mëno ko xam wala ñom ñoom ko seeni loxo do xam ñi seeni jiko deug deug deug xarit yo xamantene dañuy jógee Moscou ñewon fi ni pro eh, bëgg ma gis ay ñen ñi nek ay sénégalais biñ ñëwé ba ci bourse porte bi gardien yi nek fofu non dañ leena boo ñu joxee dix mille roubles boo ñu joxee dix mille ñu bàyyi leen ngeen gis ko benn quinze minutes parce que ñi dañ leen doon laaj xaalis ne boo leen joxe xaalis ñu may leen ngeen gis leen benn quinze minutes respecté ñu daal nit ku ñuul moom franchement si defuñu la sax ngay nit le fait que ma dugg oto bi wàcce ma ma ñëw bi ma tegee sama tànk ci porte bi dugg rek parce que guddi la woon waaji eh, eh, ji <laughs> bi nah, oh, ya ma dugg rek maak ak ak yeneen i étranger ñoo xamante ne ay arménien ouzbékistan yooyu tajikistan waa man kese maa fa nekkoon nit ku ñuul bi ma gisee rek mu daal di yuuxu ne andiwaat nañ fi beneen golo waaji wax lool affaire bi tuusi ma nag naqari ma lool wax dëgg yàlla ci laa ko ne man xanaa yow ma nekkee golo yow xanaa mbaam foofu nga ma wax ko loolu bi ma waxee loolu automatiquement ma waaji naan man rasia état rasia Russie c'est pour les Russes yow yaa ñëw sunu dëkk bi ma ne ko waaw man bu ma ñëwee seen dëkk bi dafa war a mën a tax yow nga manqué ma respect ba di ma wax loolu quoi parce que ñii nga tàbbi seen loxo nga ngay dund ci liberté nekk seen biir dëkk bi sax dafa metti waxuma laa nga ñoom ñu téye la nag ah, yaakaaruñ ci kenn nag ginnaaw yàlla ku dul ñi nga xamante ne ah, lañ jiital ñoo xamante ne ñoom bu ñu waxee dinañ leen déglu ci wàllu comme diplomatie yu demee nii daal dégg nga. ñu ngi russi sonn nañ lool lool lool lool lool lool ña ngi ci biir kaso waaye li leen jàppee mooy seen këyit a jeex ñu jàpp leen. lu ma lax fii sànq. Ah. ñaaree koo gis mu tumuraanke rek daa wàccu yoonam. léegi ñoom lu ñu bëgg. a ah, nee nañ daal dañ leen a bëgg a jàppale pour ah, état Sénégal jàppale leen ñu mën mën leen a libéré ginnaaw sàcc ñu fenn ñu defuñu dara seeni këyit daal moo jeexoon ñu ramasse leen tëj leen ñu ngi bëgg a yàgg ca kaso ba te la ñuy dund ci biir kaso ba metti na. bu ko état bi mënee na leen ci dimbale. waaw bu fekkee mën na ci dara. waaw xam nga noonu koy lijjantee nag. waaw na leen ci dimbale ñu indi leen fii ci réew mi mais gis nga baan. Hmm. réewum jàmbur boo fa demee am yu muy tere boo ko defee. Hmm. loo ca dal muñal ba mu jeex. Sénégal Sénégal donc leen lay muñale yéen ñoom xam nañ Russie. waaw ñoom xeetu Poutine yooyu xam nañ leen. Eh, ñàng na dégg nga leen leen di wax. Hmm. dafa wàcc rek. waa ji ni ko waa golo. mun ko yow mbaam xuux. nañ na waar de. du Poutine moo defoon couvre-feu génnee xaw ma segg yi ci dëkk bi. du ay segg moom euh, kiiwam yi mm, militaire am yi. noonu la ni woowee les tigres mooy armèm bi. Mhm. donc mooy da génn ay 5000 rek mooy génne na ay tigres être niñ ko bindee ci presse bi. Ah. Euh, mais ko boole mhm. xam naa ne waa presse koy def mais ñoom noonu noonu la ñu woowee seen armée bi. waaw mhm. ah, moom xam nga am na fa nekkoon armée. ci armée benn xale boo xam ne Jurbel dafa nekk ci buntu kër gi beneen maire jël ko teg ko ci saret yóbbu. déedéet ànduma ak loolu yow ci lool de du indi xalaas boobu rek de suba indil ma xalaasu. bi ma la joxoon noonu. <laughs> xalaas boobu waa ji wax lu ma wax Ndiaye. Ndiaye c'est que lim ci wax dafa ëpp. ne waa ji nee na ma. ah eh eh, eh eh eh ma jabar tuuti laa ci ñam pour gars yi mën a kii. waaw may ko tuuti. nee na moom jabar jiñ ko may xale la. du joueur. maanaam football maanaam ci wàllum football daal moom dafa crispé. moom na ay passe yi muy ay passe en profondeur yooyu. <laughs> nee na naa ko jabar joo xam ni day njaxlaf ba niroog ku gën a njaxlaf équipe nationale. ku am 35 ans ba 40 ans hmm? sunu défenseur bi Kouyaté. Koulibaly waaw déedéet Koulibaly njaxlaful équipe nationale bu Sénégal. waaw gànnaa ci gën a njaxlaf. voilà ki ki ci gën a njaxlaf nee na naa ko wutal jabar ju njaxlaf ju ju ñor xom. ndaxte ki mu yor <laughs> nee na ma Ndoye Bane ki ma yor daal man daal li ma bëgg joxuma ko. collection parfum de classe Beyaz KSS Trading kër Serigne Saliou borom bazin BK Goldi ak établissement waa kër Serigne Touba Fall et frère mi leen indil gam vite fait mi mën si yoo weñ ak mbóot ñoo leen